Ousmane Sonko Bassirou Diomaye Diakhar fay ci ne soppi nañ seen discours ak nañ daan waxee ak bi ñu faloo jamono ji waaw xam nga laaj bi ko journaliste bi laaj ah. euh, opinion la boo xam ne ah, lu ñu lu ñu liggéey la waaw dafa mel muy tàmbalee tas du ah. perception boo xam ne population moo ko am de mais ay porteur de voix ñoo ko liggéey fexe ba def ci bët ak xelu ñooñu ne réew mii di Sénégal leader yi fa nekk ah porteur de voix wu ñan. waaw ay porteur de voix yu nekk ci diaspora bi. Mhm. ay porteur de voix yoo xam ne dafa am ñu ñuy liggéeyal. Mhm. ñooñu dañu am seen calendrier dinaa ci ñëw. ñoo ñooy véhiculer message comme quoi Sénégal kat yi fa nekk. Mhm. li ñu leen doon wax amul du ñu ay panafricain li ñu leen doon gëmloo ci souverainisme amul ñii kat na woon foo woon rek dañ bëggoon accéder au pouvoir trahir nañ ñu. à partir de ce moment ñuy véhiculer message boobu ba as ba am sax ay nit yu nekk ci réew mi yu ko bëgg a gëm léegi li tax loolu mooy dafa am ñaari bloc yuy yuy yuy affronté wu ñaari bloc panafricain yuy affronté wu. Mm-hmm. benn bloc bi vision bi premier ministre ak son président mooy Sonko ak Diomaye di décliné ci panafricanisme beneen vision bi les pays yi nga xam ni ñoo nekk autour de l'AES ñoom it di décliné ñii dañu gëm ni buñ fi jëlee France. par A ou B par souverainisme mooy nga dem collaborer ak Russie ñee gëm ne bu ñu fi jëlee France mooy li Ousmane Sonko waxoon d'ailleurs wax na ko ca ba muy ut réew mi bu fi jëlee France duñ ko remplacer ak beneen grande puissance boo xoolee bi Sonko waxee wax boobu ñan ñoo ko tontu woon ñoom Kémi Seba. ñoom Nathalie Yamb mhm. pourquoi bi Ousmane ne duñ fi jëlee France indi fi Russie rek ay africain dem tontu à la place de la Russie parce que ñooñu dañoo nekk ci benn programme benn calendrier di ko liggéey calendrier boobu lu ko moom moo yéen ñi nekkoon ci loxo France nañ leen génne ci France jaaree ko ci passé douloureuse bi ñu séq ak moom ñu jaar liñ liñ séq xam nga France moom boo bëggee merloo africain rek jaaral ci France fi mu fi mu jaar ñu ñun a tax mhm. lebalul suñu maam ñu ñu baax nga mhm. jaarale ko foofu waaye jëmale woo leen ci seen bopp da nga leen jëmee ci yi ñoon dañuy encaisser xaalis dañuy jot ay salaire ci dañuy jot ay privilèges dañ leen di jàppale ci lu bëri bi Ousmane Sonko nag teelee wax moom fi mu jëm. ñoom comme ni mu amee ay pro France noonu la amee ay pro russe ñoo xam dañ koy liggéeyal bu baax. ci lañ yëkkati campagne de désinformation bi. wara jomaa yi dafa ñëw pour delloo les pays de l'AES ci biir CEDEAO déedéet. Jomaay mhm. ak Sonko li ñu subir biir CEDEAO réew yële subiruñ ko en terme d'injustice. kon xam na ne CEDEAO doxul. Mhm. xam nañu foog ñu euh, réformer taxi yi mais réforme yi dañ koy voté benn mm-hmm. nit munu ko porter mm-hmm. majorité moo ko mun pourquoi bi leen président Diomaye ne kaay leen ñu xeex suñuy droit biir CEDEAO réformer ko ñu bañ na ko ñëwul kon problème bi ci ñoom la mm-hmm. Sénégal ci logique bi mu nekkoon ba tey miñ Sonko def noonu duñ fi jëlee France loolu moo tax ñu jàpp ne dañu trahir le panafricanisme non non panafricanisme du ñoom seen vision attention nag foofu la intéressant bi ah. <laughs> <laughs> déedéet AIS sori na panafricanisme. ah hmm. waaw oui trop. AIS benn benn mbir rek la ñu réussir muy défier l' autorité française loolu ñu ngi leen kay saluer. Mhm. mais à part loolu AIS lan la réussir sëriñ bi bi nga déggee ni réew yooyu ñu ngi collaborer ba tey pour ñu récupérer seen territoire en termes de sécurité sax problème la. ña nga ca ña nga ca. yaa ngi gis barki démb difficulté yi Mali am. li mm-hmm. Ousmane Sonko wax Mali mooy dëgg Sénégal amul intérêt nekk pro AES amul intérêt nekk pro CEDEAO Sénégal intérêt bi moom mooy une diplomatie ouverte envers tout le monde fu intérêt ne rek mu dem jëli ko man loolu laa gëm ci diplomatie da ngay ubbeeku. mooy li mu wax peu importe ngeen dellu si biir CEDEAO peu import ngeen reste si du tere ñu collaborer. waaw mhm. respecté nañ loolu seen choix respecté leen seen choix ñun respecté nañ ñu nit suñu choix. Mhm. au nom de quoi Sénégal war a génn CEDEAO dem AES. pour les beaux yeux de ces présidents ñaawlu embargo bi ne bon malgré. wax na ko ñaawlu na ko wax ni bi nekkee ci jafe-jafe bu munoon yónnee soldat dana ko def. Mm. mais loolu nga mun. woole na leen kaa leen collaborer waaye ànd boo gis na ñaar a koy def. kaay ñu ànd day fekk mu neex ñaari léegi nag loolu arrangé wul ñi nga xam ni dañuy jot payooru Russie ñoom li ñuy véhiculer mooy yëf yi du foofu ñëw la ñu jëm ci Russie. ngay woy waa Sochi. kese waa Sochi nga xam ni fa la ñuy enquêté <laughs> ñoom loolu mooy seen programme. Uh-huh. bàyyil xel xoolal depuis bi Diomaye ne kaay leen dellu si biir CEDEAO ñu cheminer ensemble rek lañ ko commencé tam mu dem Côte d'Ivoire. ñu ne ko waroo fa dem léegi ñoom lu ñu bëggoon président Diomaye wàcc Côte d'Ivoire na watare eh, eh, eh, mu xool ko mënoo ko yow doo doo président bu baax. te palin bi bokkul. mais loolu du du du waxi nit en fait. xam nga nag nit koo xam ni yow yow kese la yow dañ lay fay yow say billet d'avion dañ la ko yoral yow say hôtel dañ la ko yoral lu la neex def bokkoo ki nga xam ne 18 millions de sénégalais ñoo nekk ci ndoddam. ŋàññi nañ ko sax ci euh, doxu nemmeeku bi mu def fële ca Rwanda. léegi ñoom loolu luñ ci bëgg. président lan lañ bëggoon maam Rwanda gém dem mais Rwanda exemple la de souverainisme économique ak leneen ak leneen. en matière de démocratie lay lay poser problème ci ñenn ñi. mais combattre Macky Sall. <laughs> mais Rwanda yi dafa tripatouiller la constitution pour des ci fii ak mais est que naqari na Rwanda yi. ah foofay baromètre bi. ah foofay baromètre bi Macky li mu bëggoon def li ko tiimu lépp mooy ndax neex na sénégalais wala naqari na leen. Mhm. loolu lañ ko xoolee sénégalais na naqari na leen bu mag bu sénégalais doon Macky dem troisième mandat ku ci mun dara sénégalais yee oui mais les gens du monde libre ñoom dañuy xool baromètre démocratie ci réew yi regard externe bi uute xëy na comme ni nga wax ñooy réew mi nañ ko jàppee mais ñooñ bu ñu koy natt ci wàllu démocratie dañuy jàpp ñu du exemple xam nga Pa Ousmane réew yi dafam am luñ bindoo mm-hmm. ni Sénégal mënee dund ci démocratie Rwanda mënu ko dund ci démocratie démocratie am na ñoo xam démocratie jigu leen Irak démocratie lan lañ indiloon en 2003 ñu ngi ci vingt 2024 21 na après Irak presque ruine la xam nga kon ñooñu avant démocratie lu ñu doon dund moo leen gënal. Mhm. Libye démocratie lañ leen indiloon ñetti état fa ne l'est l'ouest ak la centre ñu ngi rayante kon xam nga ñoon liñ nekkee woon a Kadhafi moo leen gënal démocratie mhm. Égypte démocratie lan leen waxoon ne leen leen di indil président démocratiquement élu ñu jàpp ko tëj ci kaso ba mu dee. un dictateur jëlaat place am. Mohamed Morsi. Tunisie démocratie la ñu waxoon ne leen leen di indil dàq fa Ben Ali indi fa ku pire Ben Ali. Mhm. Ah ay. kii war raw Kayit Saïed moo raw benn moo raw Ben Ali mi ngi restreindre liberté yi benn par benn te islamiste radical la en plus. Mhm. donc tunisiens yi ouverture bi ñu amoon yu bëri dañ koy restreindre. dañ mhm. adduna bi dafa am réew yoo xam ne démocratie yoru ko nim bindoo seen histoire liñ traversé liñ dund dafa am président autoritaire moo mun a yor réew yooyu Rwanda dafa am fu ko Paul Kagame fekk un pays en ruine ñu jóge ci guerre civile reyante ba jeex mhm. mu duggee ci junte militaire bi ñëw yore réew mi defar ko bis bu Kagame génnoon Rwanda nga déggaat problème mu Tutsi ak Hutu mhm. donc dafa réew yoo xam ni te à leur image la seen dirigeant di mel donc Rwanda soxlawuñu démocratie Ousmane Sonko li mu demee Rwanda mooy exemple de développement réussite de souveraineté économique ba loolu la fa demee Kagame nga bëgg ko nga bañ ko ñun occidentaux yi ñuy jaay démocratie sax ñoom dañoo respecté Kagame bu ko africain respecté wul seen problème la oui bi ñu delsee ci Mali Ousmane Sonko tamit wax na ne kenn du jaar ci Sénégal pour déstabiliser le Mali ndax am nga une idée ci ñi muy junj ñooñu ñana bien sûr noonu biir yi wër Sénégal premier yi lay wax ah ak ambassadeur bi fi nekk ak sorte mi ak woolu woon nañ dañ ko dañ man su ma doon xelal la premier ministre dama xelal ma ko kii dangeen ngeen koy renvoyer mu dellu dëkkam ngeen convoqué ambassadeur pays occidentaux yi nga xam ne dañuy armée Ukraine pour demande d'explication nan ngeen armée koo xam ne dafay jàppale ñun suñu ay ennemis parce que Ukraine amul armement bu jugewul ci o bu jógewul ci OTAN du jot dara mais kooku mooy ñëw ba suñu frontière di armée group rebelle di ko jàppale en terme de renseignement bu doon ñoom la tubaab bi dañ koy dàq seen dëkk dama gëm dañu waroon dàq ambassadeur ukrainien et puis d'ailleurs l'Ukraine ne sert à rien du tout xëyoon na fi bis di enrôler suñu suñu jeunes yi waaw pour ñu dem guerre ñu di leen fay mm-hmm. ay prime donc seen présence sax dafay dérange du moment que dem na ba nekk obstacle ci relation yi ñoom ak suñu pays frères yi. Mhm. mun na tëb loolu laa gëm. Mm. waaw heureusement nag premier ministre comprendre na enjeu bi lecture bi ak opinion wu débat bi ba ci la taxaw mooy peu importe nu yëf yi di mujjee ñun dañuy continuer di collaborer mooy ñu ñëwuñ pour delloo leen mbir CEDEAO kut ku kut beneen bi benn réew Sénégal du nekk arrière base pour ñu déstabiliser parce que loolu nag dafa amoon dans le waaw. senegal nekk na arrière base beaucoup de coups d'État au lendemain des indépendances fii en Afrique. Hmm, waaw lépp di boobu fi. waaw. Hmm. loolu ku mel ni Babacar Justin Ndiaye. Ndiaye mu bëri bëri historien bu mag la ci. <laughs> loolu am na moom. te jamono ji ñëpp a ngi tiit nag ci menace Iran yi. loolu am na xëy na loolu dinaa <laughs> la ndax yaa ngi bàyyi xel. ak loolu jeudi actualité internationale jeudi. mais maa ngi gis sax uh-huh. même Trudeau mu ngay woo. mbokkam yi nañ dawee ça risque na booy de Israël bu booyee ñun danañ ko yëg économiquement mm. moom danañ ko yëg lu baax sax mm, danañ ko yëg dafa mel ni déglu sax occidentaux yi koy ñaan mu njekk non non waaw crédibilité moo ci nekk quoi aa <laughs> crédibilité Iran en fait ak ci contexte bi mu jëlee bu riposté wul xam nga benn brèche bu ndaw rek Iran ak Israël guerre bi arrangé wu ci kenn mhm. waaye dafa am ñu mu arrangé seen biir contexte bi Israël seen premier ministre bi dafa am dossier judiciaire bu yàgg. ci affaire fraude fiscale mhm. yeeg yooyu waaw. bu pettee immunité premier ministre rek day dem ci tribunal yi. Mhm. donc moom rester au pouvoir moo ko arrangé. fekk guerre bee ngi dem du quitter yi nekk ci armée dañu am benn sentiment de revanche envers mouvement mouvement armé yooyu ñu ci bëri humiliation yi ngay dégg dans le passé ñoom ñoo nekkoon. boobu ci terrain bi. Mm-hmm. muy 2006 vingt deux Liban ñoom la ñu humilier woon ñoom ñoo ci perte seeni ay nit. kon ñoon dañu am benn sentiment de revanche Iran bu riposté wul day perte crédibilité am ci àddina bi parce que dafa am gan biir dëkkam ñu assassiné gan boobu. Mm-hmm. donc bu riposté non seulement mouvement. mouvement yooyu yëpp dootul wóolu Iran muy ay Hamas gi yëpp seen leader yi fa daan ñëw dinañ dinañ hésiter pour ñëw. pour ñëw effectivement. donc ñoom it par A ou B dañu soxla riposte donc da ngay gis ne contexte bi kenn bëggu ko mais par force ku ci nekk di nga war a def li nga war a def. li nga def oui alors mami euh, ku mel ni Ousmane Sonko gëjën naa génn ah.